sëñ Tuubaa kum liggéeyloo da lay jox ay bagages mu mel ni sëñ Muntaxa nag moom la sëñ Tuubaa liggéeyloo te moom muy doxe ku dem ma dem ku nag bu koy doxe boo geesoo gis mbooloo sa gannaaw bi geesoo nag bokk na ci mboola yi gis Tuubaa ci kanam moo tax ñu ngi dox doxinu gaynde ndax sëñ Muntaxa gaynde la boo gisee Tuubaa ci kanam ab liggéeyam am solo dafa yëmul ci wenn waar rek dafa ne ci leele aw ñam te ku ne xam ne tiyaaba ji nekk ci am paj te ku xam ne tiyaaba ji nekk ne ci defar ay yoon te ku ne xam ne tiyaaba ji nekk ne ci defar ay daara te ku ne xam ne tiyaaba ji nekk kon moom dafa yaatal loolu nag mooy diine moo dig ne te moo dig bokk kon nag ñuy soññ kuy taalibe kuy jullit ku bëgg lu baax

tey dañ ciy am tiyaaba dañ ciy am tiyaaba am ci ci yóbbu addiye ki ko jot bi ak ki ko joxe ñoo yem képp sëñ Sadio ma ko waxoon bi joxe 86 addiye jumaa ji bi bi yóbbu addi am da koo teg sama loxo ba dama jot liwaat ma ko jël ko ma def ni ma joxaat ma ko doo koo jox ki ko jël suñu blaat daal di ma addiye ki koy joxe ak ki ko jot li mooy comme ñoom ñoom ñooy jot li tañ leen di fay war nañoo jëf te bañ ci tafeen ci bu baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ko koo xam ne saw ñàkk dugg na ci sëñ Tuubaa bay boo sam xel dal sa njortoote ndax moom kat waxoon na ne képp ku ko liggéeyal loo bëgg àddina ak àllaaxira da koo jox sa alal sa alal ja dana barkeel te la fa desit dana dana dana yow te sëriñ bi jox ko sa alal suñ bàkk bos daf ne woon yaa moom li ma xamul bokku ci jox sëñ Tuubaa sa alal dana yokk wërsëg liggéeyal ko dana joxe barke kon nun ñëpp suñ moom suñ lépp nañ ko jox sëñ Tuubaa te fas yéene dëkk bii nga xam ne bëggutoon lu dul moom alxuraan la bëggoon yàlla yonente bi alxuraan tegu ca mus jaate lu Tuubaa Tuubaa mooy dëkk boo xam ne boo ko mësaa tudd xalkanu bi dana dégg ba ñëpp xam daa bi mu nekkee ci tukki bi it léppam xeebam téefam jëpp ci ñaanam mooy ñibbi si Tuubaa ba mën fee dëkk àggale ko rabbis tajib wal tukammil maa nawaytu lahaa Tuubaa latii bika turnaa fiika bunyaa kon képp ku jug ci luy tabax Tuubaa yaa ngi àggale yéen a sëñ bi wax kon nañ sant yàlla ndax daa waxoon ne dëkk bi day dama dama koo bëgg dëkk bi bëgg ma xeej yàlla yëpp bëgg ko suñ boroom ci maandoo mu ne dëkk bi tànnal ci xeej yii koo ci bëgg yow ma ma féetali laa moom Tuubaa tànn ma mu ne Tuubaa loolu moo tax awma ci sax daana wax ne itam fu lu waay mas lu waay yanu ci lu baax foo mën a jëm ak moom yàgg-yàgg Tuubaa lay yenn am na jotaay bu mu mas a woote njëriñ boo xam ne ci ak mujjëm la wax nañu ci tabaski wi la ci ci ci ci ci ci ci tamxaw yi dañu bisi bokk na ci la mu wax sëñ Masamba moo jiite woon ba fekk na ko te moom yàlla la ko mayoon tawfeex nekk li wax sëriñ bi sëñ bi bi ma ko nekk li sëñ Masamba ko nekk mu ne jamono ngi ñëw goo xam ne day addina sépp dana tàkk ba dof ku ci bëgg a mucc mooy ko ngi ñëw goo xam ne xiif dañ la jël witti nit ñi witt ku ca bëgg mucc mooy ko dem ci sama pàkk ba dañ ko wax jamono ngi ñëw joo xam ne day ceddo yi danañ jug ci baat boobu la jëfandikoo di way nit ñekk nangu seen alal kenn lu ci mën a mucc ku dul ko dem sama baax ba ci Tuuba kon nag alhamdulilah alamin ñun ñu dëkk pàkk bi kon war nañoo farlu ba def ci pàkk bi li borom pàkk bi bëgg te dugg nekk ci kaw suuf si di ci dund faatu ñu duggal la suuf si te suuf si mënta seere ci yow lenn loo ko defal loolu gàcce mënu ko wees te mas naa wax ci mas naa toog bu guddi ci njaay mu génn jox ku ñuy wax sëñ Omar Diba fekk mag ñi dañ daa def bunt bu ne day am ku fa ku fa toog ndax bu ñu xam fu muy génn ak waxtu mu toog bët ñetti waxtu ci mu génn jox ko sëñ Omar Diba mu jox ko soxla gi mu ànd ak moom sëñ bi dox ba génn ba bay bëgg a génn ñëeram ndek ci ay armeel la jëm bi mu ma ci armeel yi mu wëpp ba noppi daal ne kii ku mu sëñ Omar Diba ne ko mën na Omar Diba mu ne ko waaw xanaa armeel yii day kenn ku ma dénk suñu suñu fi kenn ko mos a liggéeyal wala kenn ko mos a liggéeyal koo mos a liggéeyal armée yi ñi ci suul kenn nu mas a liggéeyal nekk fi kenn ku mas a liggéeyal koo mas a liggéeyal nekk ndax buñ fi nekkoon seen yuux ñu doon yuuxu duñ ko yuuxu te seen yuux tax mootuma nekk sama kër waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jëg am na ni bañ xëyee bañ ko laajee dañ ne mosuñ faa suul bi lii duñu xam séeréer su tubut képp dañ fa daa suul te ba mu fa tegee tàmbali kooku nag ku yàlla boole moom waa nga xam li ngay def kon nañ liggéeyal sëñ Touba suñu dund gi li ci am njariñ mooy jox ko sëñ Touba te bañ ko booleel dara suñu teewaay fii du teewaay ñëw ñëw ñëw ngir jël kàddu teewaay yu soññee la kenn kuy bi ku nekk la nga mën ci lu baax nga def ko ci ndax day jëf joo xam ne day jëmmal li sëriñ Touba bëggoon ci Touba ndax sëriñ Touba ñaan na fi ndox mu baree bari suñu borom defal na ko waaye ndox mii loree nag moom itam lu fi mat a jëlee la te loolu lii ngeen doxee képp mooy tax ngeen mën ko fee jëlee. koo xam ne yàlla dogal na man baa nga am li nga man lépp def ko ci na la wóor ne Sëriñ Tuubaa nga ko defal te am na fayu ku ne am na fayu lu ne te lu mu fay dana ko ful <laughs> kon loolu na ko ñëpp maase xam leneen li nga xam ne moo ci ëpp solo nag ñu sant Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne lii mooy bëgg-bëggam rek Sëriñ Tuubaa <laughs> ci fànn gum mën a doon <laughs> te Tuubaa ci kanam nekk ci loolu jiitu ca di mbootaay gu daje goo xam ne gii mësuñu gis bu doxe ne moom bu taxawe ne moom doon wane gu ndaw diir bu néew ngay magum jëmm di mën a jël plan bu toll ne assainissement wu Touba te wóor nañu ne luñ ci dogu danañ ko ci am incha allah ndax taalib bi yëpp gëm nañu leen gëm nañu sëriñ Abib lu koy def gëm nañu équipe bi ko yor xam nañ ne yàlla mën na leen dimbale ba li ñu yéene ci Touba ñu mën koo def boobu ëllëg ak si biir duñ ko aj fenn duñ ko sàkku ci ñenn dañ koy def nañ ko war a defee ba mu sotti coleet te loolu wóor nañu ne mën nañ koo def te danañ ko def incha allah yal yàlla dool leen suutara defal leen tawfiq ak taysiir yokku leen xeewal ba li ngeen bëgg lépp ngeen am ko ci darajee lislaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kon alhamdulilah sëñ Abibou ñu ngi lay sant bu baax ci initiative yi ngeen xam ne am ngeen ko ci defar dëkk bu sell bii كخان سنبرم دفن وجهلو دهب المسكنة تعلمي وموضع الفكرة والتفهم كن الحمد لله لولو الأمن صلى الله نوي زيارة بباخ سنين بس عبد الخادم تي تخواي برافة بمتخو تي كنمو سنين متخا أن جابت جيب سن تخواي أه، لي أه، دفعي بوكو تي لنا خامنة لغنا تاروش جيف دام آدم مودي نمال دي تفك لخل برافة selewu tànk euh, état mënut a def lépp ñu jàppale état ci loolu tàmbali ko day exemple boo xam ne wane na ne sëñ Touba indépendance bi mu doon ñaan mooy lii mooy ah, mooy indépendance économique lu am solo la te bu ñu àndee lu ñu mënut a def rek amul man day ku ñëw ci man ne ma dañoo bëggoon a jëf ci Touba ci kanam wala ñi ma koy digal ñu koy def dama naan leen sëñ Abibu day lépp lu nit teg ci loxoom mel na ne teg nga ko ci loxol Xaadimu Rasuul te noonu la noonu lay àgg kon nag yal na yàlla àggale naal yëpp yëpp ci bopp te yàlla may nu wér ak kattan gun ko gën a mën a jaamoo gun mën a toppee ndigalal sëñ Tuubaa yëpp gun mën jàppale jàppalee sëñ Muntaxa ci yan bu bi nga xam ne mu yan ko te euh, sunu borom aar ñëpp bi jaax yi say dubu jër doxin bi nga xam ne moom lañ ci dox mooy bi ñu xoolee ñi xam assainissement yëpp xam nañ ni assainissement soo koy def dafa doon loo xamante bi ne nii doo ko def di ko def ay barab yoo xamante bi ne ni dañoo wuute soo koy def li ci njëkk mooy que ni bu dee ab dëkk bu mel ni Touba da ngay jël ay études yoo xamante bi ne ni day jël dëkk bi yëpp ci ni mu toll ba euh, euh, boolewaale ci ni nga xamante bi ne ni noonu lay màggee. def loo xamante bi ne ni dañ koy wax benn plan directeur boo defee loolu ba noppi euh, ci li nga xamante bi ne ni moom nga am ci koom ci ñi nga xamante bi ne ni ñoo ci war a yëngatu ci ci mbir moomu saa su ne ñu jukkee ci plan boobu def loo xamante bi ne ni day méngoo ak euh, li nga xam ne moom gañ lañ tëraloon loolu nag bi nga xamante bi ne ni seet nañ ko tubaat ca kanam xëyul xëy rek woote li ñuy wax dafa am fuñ ko teg ndax loolu dafa amoon avant Touba ca kanam ak bi fi Touba ca kanam nekkee dafa amoon lu ñuy wax ay acteurs yoo xamante bi ne ni dañoo nekkoon ci wàllu woowu di ci yëngu fii ci Touba. mooy barab yi nga xamante bi ne dañ koo jëm ñu wax ci ne dafa toll ci ñaar fukki barab foofu danañ fa am benn leeral eh, ëpp na ñaar fukk dafa doon loo xamante ne bi ko Touba ca kanam xoolee saytu ko càmbaraat ko xool ak li nga xamante bi ne moom la ñuy wax ci wàllu budget dañu ni ñu jël ñaar fukki yi nga xamante bi ne ni dañ koy def bañ ca noppee am na beneen lim boo xamante bi ne daf ci topp lim boobu dafa doon loo xamante ne dañ koo def mu doon loo xamante ne liste d'attente la am na ci yoo xamante bi ne sax ñu ngi koy ñu ngi koy fi ñu toll ñu ngi koy xool di ko càmbar ndax nit ñi ni nga xamante bi ne noonu la ñu wuysee ci woote bi mu doon loo xamante ne luy wéy la kon loolu liñ ciy wax mooy que ni euh, budget bi nga xam ne déggoon nañ ñu di ko wax mu nekkoon budget bu prévisionnel muy cinquante million yooyu kon ñaar fukki site yooyu moo doon loo xamante bi ne ni ñoom la concerné woon te gis nañu ni ci list liste d'attente bi mën nañoo continuer wéyale kon euh, loola day continuer wéyale ñu indi ci beneen leeral boo xamante bi ne ni leeral bu euh, leeral bu leeral bu gàtt la rek mooy Touba ca kanam su jógee wax jël benn projet wax ni daf ciy def cent cinquante million surtout ci lu mel ni ci assainissement ku koy xayma bu fekkonte bi ne ni lépp da koo fay mën nga koo xayma ci ñaari milliards ndax daf ci bari loo xamante bi ne ni du ko fay daf ci bari loo xamante bi ne daf koy dikk daf koy dikkal dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax matériels yi dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax matériaux yi dégg ngeen sànq bi ñuy wax li nga xamante ne mooy xam yooyu yëpp booy def nii dafa doon loo xamante ne danga koy fay te étude dafay jël lu bare bare bare bare bare bare matériel roulant bi lu cher cher cher cher cher lay coûter kon loolu lépp bu ko amee looloo koy permettre que ni su waxee benn enveloppe xëñ ne boo koy xool bu buñ ko doon def day doon loo xamante ni leen lu bari lu bari lay doon